mbooloo mi fi teew yépp euh, maa ngi nuyu ñépp di jégalu bu baax nag euh, presse bi nga xam ne jël na temps fii te ñu xawoon a tàdd ñu ciy jégalu bu baax di rafetlu seen liggéey di nuyu waa commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkku rab yépp di nuyu département de Rufisque ak li ko wër di nuyu àdduna di nuyu Sénégal di wax ne euh, ñun waa mouvement BAS mooy booloo ànd sukkaliku muy sunu mouvement boo xam ne e, day dox ci li nga xamante ne mooy développement ak e, jàppalante ci sunu biir ak li nga xam ne mooy defar sunu réew tey ñun ñëw woote sunu point de presse pour waxtaan ak yéen waxtaan ak e, mbokk commune Tivaouane ñàkk ñàkkurab ndax li ko waral ku xam commune Tivaouane ñàkk ñàkkurab xam ne Eh, dëkku yàgg ñoom ñoo ëmb commune bi eh, mën naa ko citer par benn waaye kon day jël temps waaye eh, ñu bootu nag ci département de Rufisque depuis ay at maanaam ñun dañoo juddu rek suñu papa yi ak suñu yaay yi ñoom ñëpp ñu bootu ci département de Rufisque ñun nag yaakaar naa ñun ñoo gën a jege tey Dakar sax Rufisque bi ngay gis waaye tey suñu commune moo gën a ñàkk la nga xamante ne ay jumtukaay la ak loo xamante ne luy war a développer commune la te loolu yëpp boo ko xoolee nga xool jafe-jafe yu ñu am te loolu sunu maire mu ngi ciy def kémtulaay kattanam mais moom kese mënu koo def ndax ñun suñu gox bii dañoo am ay nit yu jàng am ay jeunes yoo xam ne ay cadre lañu dañoo jàng ba am seeni diplôme ñu am ay nit yoo xamante ne ay jigéen lañu ñu def seeni formation ba nga xamante ne war nañoo mën a am ay liggéey yu ñu def loolu yëpp amul ci suñu commune bi amuñu benn nit koo xamante ne représenté na fii dara ci assemblée nationale wala conseil économique sociale social wala nga ne PCA wala nga ne lenn loo xamante ne rek eh, am nañ ko ci commune bi kon suñu parti loolu moo ko gën a so eh, tax muy sooxe fii eh, te loolee yëpp maire rek moo ci nekk ak leader yi politique yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ànd ak monsieur le maire di liggéey ñoom suñ ci deful dara kenn du ko ci def ñu bëgg présent Macky Sall nga gëstu suñu commune ci suñu commune sooxe na fi te ñun ñu ngi ñàkk suñuy waajur fii ak suñuy doom ak suñuy rakk ci ay li nga xamante ne eh, sécurité rek moom moo tax kon président Macky Sall ñu ngi lay woo di la di la wax nga jàpp jàppale ñu am poste police bi ci commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkkurab pour ñu mën a sàmm suñu kaaraange ndax suñu waajur yi la am eh, ñu bëgg président Macky Sall lépp loo xamante ne yaa ngi koy def ñun gisaguñ suñu bopp ñun commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkkurab su tawee tuuti taw bi jot a ñëw ñëpp seen yére yi ñu ngi yàqu te ñun ñu ngi ni jóge jóge Dakar te président Macky Sall bul fàtte ne yow yow fii rek yaa fi mos a gañe am saa boo demee élection koo dendal fii da nga koy daal ñun tamit bëgg nañ nga gëstu suñu population bëgg nañu am pakaseen bëgg nañu pavel ñu suñu tali yi suñu lycée bi bëgg nañu suñu lycée bi nga xamante ne délibéré nañ ko ba mu génn lu mu gën a gaaw président Macky Sall nga jàppale ñu suñu lycée bi mën a taxaw ndax suñu xale yi ak suñu rakk yi ak suñu doom yi ñëw ëllëg dañoo war a jàng ndax njàng mooy yorub réew président Macky Sall département bi dañ ko dénk ay nit te ñu ko dénk ay politiciens yoo xamante ne ñu yàgg lañu dañoo ancien léegi ay xale yu ndaw ñoo fi nekk yoo xamante ne ñoom ñoo war a doxal du ñu ànd ak ay nit yoo xamante ne dañuy dem ñu gàñe leen ba ñu périmé ñëw fii di xaaj suñu commune di xeex suñu maire loolu duñ ko nangu te combat bi man woote naa te du taxaw dama bëgg nga taxaw wax ak ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi nekk fii ministre yi fi nekk waaw ministre Oumar Gueye ma cité ko jàppalewul dara Tivaouane deful dara Tivaouane loo xamante lu taxawaay ñu amee suñu métti dañuy dee duñu ci dimbale mosul ñëw fii massa wuñu si jafe-jafe yu nit mos a am kon moom la ñu dugalaat ci liste yi ñun nag balaa ñuy jëlaat suñuy carte di ko voté man APR 100 pour cent 1000 pour cent waaye balaa ñuy voté waat à 100 pour cent pour joxaat la da nga wax ak ñun nag wax ak suñu population président Macky Sall ku xam xam Bassirou Ka xam ko ci président Macky Sall dem cee seey du ma ci du ma xooj mbiram waaye nag dafa jot ñun askan bi saa bu ñu leen soxlee dañuy sol mbubb dugg ci seen kër yi wax leen kaay leen wateel président Macky Sall bu ñu génnee li ñu leen waxoon duñu ko def te su boobaa ñun tamit dañuy am ay kers saajal suñu jeunesse loolu duñ ko nangu élection yaa ngi ñëw nag dama bëgg président Macky Sall nga lijjanti loolu ñu ngi wax ne waa Tëngéej dañu war a def jokkoo ak Macky dem fa war a ñëw ñu ngi koy rafetlu bu baax waaye xaajaloo am na ndax du ñuy d'accord jeunes yi nga xamante ne dañoo beroon seen liste bopp demal seen bopp ñu dem ñu gagné leen ñu ñëw ñun dañuy ñëwaat di jiitewaat suñu jeunes yi nga xam ne ñoo gagné woon loolu su amee vote du am loolu duñu ko nangu président Macky Sall jëlal say responsabilité su commune bi ci ci 4C yi bokk naa si ndaw yi la yi nga xamante ne maa la recevoir woon fii ba ngay ñëw nga ànd ak sama yaay Aminata Tall nga dajeek Omar Gueye fii ci wetu kër ci ci jumaa ji ba nga dajeeg moom def eh, dafa la ne yaa moom eh, dafa la ne moom moom moom fii nga ne ko yaa moom ba tuuti nga ne ko nga ne Omar Gueye kon ñu séddoo ko cinquante cinquante boobu xamoo leen woon ndax di ngeen coaliser kon ñun bu ñu nekk ci yow Omar Gueye ñëwagul woon kon nag bu ñu ñëwee fii ñu bëgg a jaxase suñu kii ba pare ñu jël ay député def ko ñun amuñu député amuñu dara ñu ne nañu voteel député boobu loolu dañ koy seetaan kon maa ngi la ci woo di ci woo oh, waa commune Tivaouane Peulh Niaga Niakoulrab président Macky Sall dañu dolliwaat doole ndax dangaa ñëw fekk suñu commune am euh, mu am ay jafe-jafe waaye dañ ñu jël boolewaat beneen dëkk muy ñàkkurab xam nga ñàkkurab rek li ko wër rek ay village yu am solo la te yooyu dañu ñëw bootu ci suñu commune suñu commune amul doole boobu budget bi commune bi sax attanul lool kon il faut nga gunge suñu maire nga jàppale ko gunge suñu leader politique yi nga xamante ne ñu ngi lay jàppale fii man soxlawuma dara dama bëgg rek luy doxal Tivaouane ndax loolu su amul dama koy continuer di xeex te fii ak élection damay wax ne suñ ko réglé wul commune Tivaouane Peulh ñàkk ñàkku rab kenn du vote ñun ay affaire lañu waaye du ñu vote Benno Bokk Yaakaar loolu moo nekkoon kaddu yi waaw loolu moo nekkoon kaddu yi di wax ne jafe-jafe yi bëri na su ma doon lim ba suba day am lu des waaye eh, poste de police bi daal maa ngi ci insister pour président Macky Sall jàppale ñu ko ndax ñu ñu suñu yaay ak suñu rakk yi yëpp ay si problème sécurité problème éclairage am nañ ko am na ñoo xamante ne eh, ñu ngi dëkk en distance ay gan la ñu parce que président Macky Sall bul fàtte suñu commune dem ñu indil ay gan yu bëri yaa ñu andil taw fekk yaakaar ñàgg andil ñu taw fekk yaakaar bu teewoon pël kon su loolu yëpp daf ñu dolli doole kon il faut nga jàppale suñu maire jàppale suñu commune jàppale suñu population pour ñu mën ci gis suñu bopp loolu moo nekkoon wax yi xam naa sama rakk di sama sama xarit ba moom di secrétaire général mouvement BAS moom dina ñëw ci version français bi may jégalu mbokk yi fi ñëw yëpp di sant yàlla bu baax di ñaan Serigne Mountakha yàgg fi lool